kii la di Ndella Madior Diouf nekk fële ca camp pénal muy kaso boobu nga xam ne ci la ñuy denc jigéen ñi le moom mi le nag mi ngi sàkku jamono ji ñu bàyyi ko bàyyi néggandiku kile di Ndella Madior Diouf mi nga xam ni mi ngi sàkku bàyyi néggandiku moom mi nga xam ne moo jiite woon fële di Pompinière kër Yërmande moom mel ni ki xamle li ñu mel sax ah, di maître Barreau di kenn ci avocat yi koy layul ah, kon ni ki eh, moom démb mi ngi janloo woon ak ki nga xam ne mooy ah, juge d'instruction Ah, bile moom nag moom ñi lee di Ndella Madior Diouf ñu ngi ko tegoon loxo ah, ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru ah, décembre bale ñu génn doon ko toppee yu bari ci li nga xamante ni bi mooy tout tànk yooyu mu dencoon ci pépinière am boobu ñu tuddee këru yërmande moom nag tegoon nañ ko loxo ak ñeneen kon jamono ji nag ñu bàyyi ba xam fu yoon di mujjee ndax des na ko may bàyyi néegundiku wala déet diggante Euh, kile di Macky Sall ak Amadou Ba am na lu ci laxasu woon wala déet kile di Abdoulaye Seydou Sow mel ne ni am na lu mu yëkkati daal ko ciy génne ci ay kàddu moom mi nga xam ne dalaloon nañ ko ci 7TV moom mi nga xamante ni bii rek moom mooy Abdoulaye Seydou Sow ci émission bi nga xamante ni bii rek Maimouna Ndour fay moo koy faral di def waaye nag lim xamle mooy diggante kile di amadu Ba ak Macky Sall am na lu ci xewoon. ndax moom mi li jotoon nañ ko wo foofu ca palais de la république ah, doon ko xamal ni daal njiitu réew bi fi ne woon ah, doon ko xamal dafa bëgg a changer coppi kandida eh, ah, bu Amadou Ba mu mel ni kon moom mi sax nee na ko waxoon na ko ni kile Ba daal moom mooy tànneef bu baax bi ndax daanaka moom lañ taboon def ko kandida Ah, moom njiit ko fi doon njiit loolu sax daan ni kon day na bàyyi ba waxtaan ak ñi ñuy woowe eh, conseil exécutif national bu APR rawatina ki lay di Mahmoud Saleh Omar Sarr ak ki nga xam ne moom mooy eh, Benoît sambo waaye nag lu ci mën a xew moom umpul woon kenn ni clé di njiit réew ah, bu Sénégal bi woon am na diggante dëgg-dëgg ak clé di ah, Amadou Ba di candidat bi nga xam ne Bassirou Diomaye Faye moo ko mujj gagné ci élection yi ñu génn Madiambal Diagne moom it daal ci defaloon ab jàngat bu am solo ci seen diggante bi ak la fa xew mu mel ni kon ñoom dong ñoo mën a xam li xew seen dëgg seen diggante dëgg-dëgg waaye kàddu yi clé di Ablaye Sow mii nga xamante ni bi rek moom mooy jiite jaraaf bu Kaffrine moom daanaka daan fisal lu bëri ci wàllu googu lay mu mel ni moom sax ndax nekkul na day yi jamono jile kii di Amadou Ba ndax kii di Macky Sall yeble woon na ab délégation fële ca Daaka bu Medina Gounass waaye nag lu ni lu ni mel. am na daal loo xam ne ab junj la ki nga xamante ne bi mooy ilimaani jëwriñ di Ousmane Sonko eh, ni ki démb ñu doon amal li di ndajem conseil des ministre ci teewaayu njiitu réew mi eh, président Bassirou Diomaye Diakhar Faye moom mi lee eh, ki kile di Ousmane Sonko di ilimaani jëwriñ yi moom daal nee na xam le ne ci boobu la ndaje dina amal benn réunion interministérielle boo xam ne dañ koy jagleel li nga xam ne mooy aju màkk gi aju màkk deux mille vingt quatre mu mel ni boobu la conseil ministériel tamit am na beneen bu loolu ñuy taftal ca wet ga mu ñeel li nga xamante ni mooy wàllu wàccaayu euh, tabaski gi euh, ci atum mille vingt lay ma moom ne kon ñaari date yooyu yëpp jàpp nañ ko kon fukki at euh, fukki fan lay doon ci weeru mai ak fukki fan a ñeent ci weeru mai la xam xamle moom mi lee di ilimaani jëwriñ di Ousmane Sonko moom it daal na xam leen daal ay xayma boo xam ne rek def nañ ko euh, ci li nga xamante ne bii rek moom mooy euh, liggéey bu ñu leen euh, liggéey bi état bu Sénégal daal di sóobu woon ngir daal wàññum njëg gi mu mel ni fi mu ne nii ñu ngi ci tolluwaayu xayma ginnaaw bi nga xamante ne bii rek sóobu woon nañ ci benn plan d'action d'urgence ngir luy ñeel li nga xamante ne mooy wàññi njëg gi waaye tamit ñu indiwaat ay càmbar ci yenn ci ay programme ak ay projet waaye tamit ci xool li nga xam ne mooy capital humain ak li nga xam ne moom mooy wàllu koom Euh, moom mi lay tamit euh, ba tey euh, di ilimaani jawri ni ci bi muy xamle li nga xamante ni bii rek moom mooy mi mu yëkkatee kàddu euh, xam dellusiwaat na ci li nga xamante ni bi mooy ndaje mi amaloon muy conseil interministériel ajjuma ñetti fan ci weeru mai euh, daal di koy jagleel li nga xamante ni bi rek moom mooy wàllu euh, nawetu ren bi rawatina lii mbay mi ak solo si nga xam ni gouvernement bu Sénégal daan na koy jox bëgg coppite goo xamante ni bi gu gaaw la jëm ci wàllu googule moom ki la di njiitul jëwrin yi ba tey ilimaani jëwrin ni moom it xam leen ne dina amal benn ndaje moo xam ni conseil enseigne supérieure d'orientation lay doon ñeel lépp lu jëm ci wàllu agro euh, agro euh, sylvopastoral euh, ba nga xamante ni bi moom ci njiit réew bi ci boppam di président ba Bassirou Diomaye Diakhar fay moom mooy teewale moom mooy teewe boobu leen ndaje